lay mat journal bi laaj ko ndax premier ministre du mujjee defi déclaration de politique générale am feneen fudul assemblée nationale assemblée nationale googa ca vox populi ministre porte parole du gouvernement Ibrahima Ndiak Sare ma ngay xamle ni président de la république dana ca jëli responsabilité am bu jotee ma ngay ñaawlu ca booba lépp journal moom Moustapha Sare lu mu tuddee njuuj njaaj ci règlement intérieur ub assemblée nationale booba ñu mën a dugal ci constitution ne askan lay defam assemblée nationale la nar a jaar yéene kaa bi ne lum ci mën a doon daal président Bassirou Diomaye Faye moom jamono ji yoonam lay wër journal bi ne faaw nag mu génnee liñ naan grand jeu compromis yéene booba it dikk na ci waxtaan gi ñuy laam-laame diggante njiitu réew mi njiital assemblée nationale njiitu réew mi Bassirou Diomaye Faye ak njiitu réew ma woon Macky Sall ñoo bokk xët gu njëkku direct news yéene booba gis a xamal ne njabootu Faye Sall moom tas na journal bi ne Mansour Faye ma daloon ca kaw Aliou Sall ne ko traître nga keroog ba mu jëlee dogalu ne day génn ci APR dégg na musibaam démb ci Aliou Sall moo ma ko yëkk keteme Dakar Presse ne Aliou Sall kay dafa futti Mansour Faye lu mu ko waxut da koo fàtte ñoom yi mu def ci jamonoy Macky Sall Aliou Sall junj na ko na mu doon buuxee Macky ci ñetteelu mandat it Aliou Sall dikk na ci ak yeneen ak bokk ca la xew bu Ndar sus aane Aliou Sall kay li mu yàq Mansour Faye raw xeme weñ wu ca dal dee yéene kaay bi ne amul lu mu ko deseel Vox Populi dëggal ko ne Aliou Sall kay procès dynastie Faye Sall la doon def démb boole ca yàq keteme Mansour Faye yéene kaay booba ne waaye waxul yemul ci loolu dong wax na itam ci nguurug jomaay geeg Ousmane Sonko nee na Sonko bu mayiwul jomaay dana ko bett Aliou Sall ca waxaat loola ne Ousmane Sonko bu mayiwul mbetteel gu rëy a ma woon ne moom ci confrontation la gën a nekkee à l'aise maanaam ci defante nee na nii mbir yi doxee lu mu yàgg-yàgg clash dina am maanaam réeroo dina am diggante Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye Aliou Sall lay wax ba tey ca la googa di ñu yëgal de choc diggante jomaay fay ak bugaan yéene kaay booba ñuy xamal ne bu njiitu réew mi waxee ba nuppi njiital gëm sa bopp nar a kàddu ñu fekkati kàddu yi Aliou Sall ni xool naa ba xool waaye sama famille amul kenn ku cay traître mu sàkku it ci Mansour Faye mu def noona xool ndax ci ay waajuram ba ci ay maamam amul ku cay traître ndax xëy na loolaa tax mu am sañ sañu tuddee ko ko moom Aliou Sall Aliou Sall xamle ni ca APR ña ngay def lu ne ngir Mansour Faye jamono vox populi naan ñu bokkoon na ci ndajem ministre des transports UEMOA yéenekaay ne El Malick Ndiaye moom ànd na ci ñu taxawal ab compagnie aérienne unique maanaam benn compagnie aérienne bu UEMOA bu am dool wala ñu yokku jëflante gi diggante compagnie yi fi nekk maanaam ku ney dimbale moromam bu nekkee ciy jafe-jafe Abdou Sane di environnementaliste bokku it ca booba jamono ma ngay artu ci jafe-jafe yi nar a jut ci transformation industrielle lu ci gu rëy ne loola bu nu ca duggee mën nañ koo jàppee sax beneen agression bu ñuy def ci alam gi mu dem ba méngale koog braconnage source a moom ba tey ma nga ca rapportu recensement général de la population bu ay ANSD yéenekaay bi ne adolescente yi maanaam xale jigéen yi am fukki at ak jàpp fukki at ak juróom-ñett juróom-ñeent nee téeméer boo jël juróom ca ñoom ci ay mariage polygame lañu ne maanaam dañuy wujjee yéenekaay bi ne xale jigéen yi itam ñooy gën a teel a say góor ñi góor du projet bés bi la journée loolaay xeex bu bés bi jigéen ñi sumb journal bi tuddee ko beneen xeetu fipp yéenekaay bi ne boobale waxtaan yëkkatee ci bis coow lu rëy la mujjee jur fa ñu mujjee mooy tuumaalante mbiram góor jigéen ak mbiram lesbienne waaye oustaz Tayib Socé ca cappaandaw la àtte na coow li ne projet bu jigéen daal mooy boroom këram ay doomam ak këram libération moom yóbboote ñu ca kër googa di caisse de sécurité sociale yéenekaay ba ne pillage bañ doon def di sàcc ga ca biir lañu ko doon defee journal bi yeggee ñu ay mbir yu doy waar yu fa waa section de recherche gis luy tolloog benn milliard bu teg juróom-ñetti million ba ñu fa ne doñeet yéenekaay baa ngay faram fàccee nanu def ba sàcc ko ci seen biir ñaar nekk du ñoom képp ne ca mbir ma seen kilifa yi nekk ca bopp caisse de sécurité sociale yéenekaay bi ne taqal nañ leen ci nanu def ba luubal googa mën a ne nag mooy système da ngay ñëw ma ne nanu koy natte itam baaxul waral yéenekaay bi ne mer ngay xeeñ ca campagne agricole ba saakub engrais bi it booba leen mën a xamle ni it léegi tey mu ñibbisi ci Sénégal ngir taxawu parti démocratique sénégalais booba Assane Ba bu parti démocratique sénégalais ne ñibbisi Karim Wade lu leen di amal njariñ la dana mën a tax ñu doxal parti bi tëral itam stratégie yu leen mën a may ndam ndam ci élection yi nu dëkmal ñu jeexal ak source a mi ñuy xamal ne assemblée générale fédération sénégalaise de football bi ñu waroon a amal ci njeextalu ay bés bi mujjee nañu koo dàq gannaaw proposition yee jógee ca club ya ñeel statut yeeg règlement yi ñu bëgg ñu soppi ko waaye l'observateur la mu xamle mooy ministre des sports ca boppam moo dàq boobaleb assemblée générale bu Augustin Senghor woote woon te mu doon xeeñ coow yéen ñu ngi leen di ñaanal kendal ak jàmm dig dajee altine incha allah AGT